Ehm, assalamualaikum, bokk yi bokk senegal may delloo nuyo kenn ku ne ci turam ak ci santam ah, di wax ne man de li ma man ma juum moy eh, kep ko xamni ki ki wulo ci kurel gi ñu naan am ndey képp ku ci féetewul war nga am gàcce war nga am kersa képp ku féetewul ci ñooñu daal war nga am gàcce war nga am kersa ñi ci fété sax vraiment ku ci am looy ruus war nga ko am man de am naa gàcce am naa kersa wax dëgg yàlla am naa gàcce am naa kersa ci réewum Sénégal mii ma dëkk te tey bu yàlla defoon ma génn senegal dem feneen danaa xaw a ruus a nekk Sénégal yàlla xam na ko yàlla xam na ko li xew démb lu doy ki man la lu doy ki man la te Ousmane Sonko ñu bari dañ doon wax waroon naa wuy ji waaw ñu bari doon nañ ko wax bëggaloon ko jàmm waaye man de jàpp na ni ni mu def la ngir nag doon na metti lool mu ñëw toog ndaw si di ko yëkk lim ko doon yëkk mbir mi man li ma ci gën a li ma ci gën a jaaxal gën ma metti lool lool lool lool gën a am kersa ci samam réew ak ñi nga xam ni ñoom yàlla dafa def seen liggéey mooy di waral leeral askan wi di topp mbir yi nu mu demee ñu di leen koy wax mooy presse mooy taskati xabaar yi bi ma xëyee tey déglu revue de presse dama am gàcce billaahi wallaahi taala dama am gàcce taskati xabaar yi bu ci nekk la ñuy njëkk a wax aji sar nee na aji sar nee aji sar nee ko aji sar nee aji sar nee na aji sar nee am na ñu koy tudde star star de nangam aji sar nee na aji sar aji sar nee na aji sar nee na toute une journée doo ci dégg kenn ne la waaw nee na ban firnde la indi ban firnde la indi dégg na benn journaliste borom benn sit bu jëli responsabilité laaj na loolu li mu wax lépp li mu wax lépp waaw d'accord moom moom Ousmane Sonko ko nangam Ousmane Sonko ko nangam Ousmane Sonko ko nangam Ousmane Sonko lu mu fàttewul ah, teg na ko ci der Ousmane Sonko bi kii moom ñaari at yëpp. ñu ko doon tàggat ci lii lañ ko doon tàggat moom mokkal na ko lañ ko doon tàggat ñaari at yi yëpp mokkal na ko waaw bu ñu paree la mu wax waaw sunu bokki taskati xibaar duñ laajte nag waaw loolee mu wax fu mu ko teg ndaw soosu loolu mu wax li mu yàq Sonko lépp fu ko teg ban firnde la indi ban seede la indi dañu doon wax ne am nañuy vidéo am nañuy nangam am nañuy ayoo am nañuy nangam ana loola wenn lamiñu ndaw soosu dong lamiñu ndaw soosu dong procureur mën cee sukkandiku laaj ne nañu tëj Ousmane Sonko fukki at bu dul ci mbir moomu ñu tëj ko juróomi at ngir day ger ndaw yi mais Sénégal man réew la nu ne Ousmane Sonko dañ koo jiiñ ne dafa tëdd ndaw soo si ci lu ko neexu da koo siif loola lañ ko loola lañ ko taqal du moom moo war ñëw seetal der déedéet ki ko taqal moo war a ñëw indi firnde ñëpp di ko déglu mu yoru lamiñam lu mu ko yëkkul daf koo fàtte lu mu ko yëkkul da koo fàtte lu mu ko yëkkul da koo fàtte ñeneen ña féete ca wet gee li mu wax lépp dañ koo weddi rawatina xale ba mu doon liggéeyal lu mu wax lépp da ko weddi ay seede ñëw docteur ba seetoo ndaw si ba def certificat médical ba ak ñeneen ñeneen ak ñeneen def seeni seede seede yoo xam ni dafa woro ak li ndaw soosu wax te dégguma benn taskatu xabaar dégguma ko man mu wax ca seede yooyee la ñu wax dégguma ñu wax ci tontu yu am fulla ak fayda yi ndey Xadi doon wax waaye lépp rek nee na nee na nangam def na ko nangam def na ko nangam def na ko nangam def na ko ba mu jeex te li ñuy tuddi la une ci leur seen journal mooy boo jëndee journal li ngay njëkk a gis loolu dong lañ ci waxi waxi waxi ndaw sa waxi ndaw sa waaye mu ci kenn ci ñoom ku ne waaw ba mu waxee lii ba pare ban firnde la teg liñ naan viol tëdd ak yow te neexu la mais ay firnde la da ngay joxe firnde firnde yi ba ca gën a am solo mooy certificat médical docteur bala seet gannaaw bañ la defee loola nga dem seeti ko nekku bii kat dañ ma def nangam ba ca gën a am solo certificat médical boobee la. certificat médical ba li mu wax ñëpp xam nañ ko walla boog nga amub seede ndaw sam na woon seede la ndaw sa la mu wax ñëpp dégg nañ ko audio yi mu doon wax moo waaye jooju ndax xaw ma aw gal xaw ma am nañuy am nañuy nangam anañu dara dara dara ñu yemaleenu rek ci wax jox ju ñaaw ci wax mais c'est extraordinaire nun mais je le dis ku leen tudd ñu rey la mais notre presse la pose problème pose problème maanaam li xew démb lépp lépp lépp dañu ko réduire yemale ko ci kàddu ndaw soosu ñeneen ña wax amuñu benn solo li mu wax lu garaaw teg ko ci Ousmane Sonko lu garaw teg ko ci usman Sonko indiwul benn firnde benn firnde indiwu ko indiwul benn seede ñu yem ca loola rek mais war nañ ne nag bu ñu waxee ñu ne waaw wax na loolu ba pare waaye nag dëgg-dëgg Adji Sarr an an ana dinaa ko sax yàlla na ma ko sama borom bi jéggal daw suus yàlla ana ana anay nu mu tuddit anay kenn wax ko ci c'est extraordinaire ça ensuite Sénégalais yi quand même oh, oh sunu réew mi de démb li xew si wàcc na suñu réew mi bu na suñu réew mi bu baax a baax a baax a baax a baax teg na kersa suñu réew ba képp koo xam am nga looy bañ am nga kersa démb te mbir mi la yàlla xam na ko wala yàlla xam na ko lii ci xew lépp dañ ne Ousmane Sonko parce que senegal li dafa war a xaw a gaaw a fàtte tuuti ji nga mbir ma keroog ba ma amee lu njiit njaaga gendarmerie parax paraxam ja ca la jóge li ma ko wax maa ko wax yo réew mi nag yëpp ñu jàpp maa ko wax seen parax parax fa la lépp tàmbalee parce que ban da ko sa porté plainte rek dañ saa teg ñaari fan ñetti fan dem yónni yóbbu yóbbul Ousmane Sonko euh, plainte foofu la lépp commencé mais kiiraayam booba mi ngeen moom mu lànk ne kiiraay sama kiiraay nañ ko dindi soog maa woo ñu ne déet pour déglu ko rek mën nañ koo woo mais lu ana yàkkamte parax parax ja foofa la lépp commencé te bu ñu taaxiirlu woon tuuti garde des sceaux ministre de la justice day laaj assemblée nationale ñu dindi kii rayul Ousmane Sonko te loolu xam ngeen du yàgg parce booba ay meeru ñu nga Cheikh Seck nga fa mu Moustapha Diakhaté nga fa di ñett ñi bokk ñi gën a bañ Ousmane Sonko ci àddina ak keneen ki may bañ a tudd te muy wax di bind en général ci seen tur mais loolaa gënoon a yomb bu ko defee kenn du am looy kii waaye para para ja ñetti fan rek nga dem te kii mi ngi nu mu nga convoqué ko mais manum déedéet sama immunité man du ma wujji waaye loolu lu ko gënoon a yomb tuuti rek ministre gat ministre la justice moom day gaaw day daal di bind assemblée nationale nañu dindi kiiraayam du taxaw dañ koy dal di dindi bu boobaa gendarme di ko ko booba doom benn lay day wujji mbir ma foofa la commencé ami jafe-jafe jafe-jafe foofa la commencé ba ñu dindee ngi euh, kirali woo ko mu dem ba fa mu war dem ne day jaar ñu ne ko déedéet doo jaar fii fii ngay jaar loola njëkk ndi problème fii laa jaar ñu ne ko euh, déedéet fee ngay jaar mu ñu parax paraxee génn cotoom yóbbu gendarmerie mais Macky Sall mi bañ ko convoqué loolu nit ñi dañ koy fàttali tout le temps daa ànd ak mbooloom fu ko nee jaar de Idriss Seck noonu waaw luy ndey Ousmane Sonko jaar foofu ñu ne ko fii ngay jaar loolu lu ñuy jaaga foofa la jógee foofa la lépp jógee waaye buñ ko jaarale woon bañ koo parax paraxee bàyyi ndànk ñu dindi euh, kiirayam ñu woo mu dem gannaaw gi ñu woo ñu bàyyi ko nañ ne ko 9h 10 na la fa na mu jaar fa muy jaar dem. te boobee ñu ne ko corniche gooy ngay jaar wane nañ ci réseaux sociaux yi ay ponkal yu yor ay seen yet ak seen i jaaj ñooñu lu ñu fa doon def donc mbir mi nit ñi dañ ko dul seen ensuite sénégalais dafa xaw mel ni waaw am na loo xam ne man sax du ma ca àgg gis nga man ba ma déggee plainte bi sama nama ma sénégalais yi déglu kum neex nga gëm kum naqari nga gëm ba ma plainte bi revue de presse ci suba ñu ne les échos nee nañu ndaw soosu plainte Ousmane Sonko pour viol répété avec arme à feu et menace de mort mais les sénégalais quand même da waaye xam-xam plainte pour viol répété avec arme à feu de mort siif goo xam ne gii ay yoon la ko ko def ba ca ñeenti yoon te bu ci nekk day ànd ak ngànnaay arme à feu pluriel mooy lu bon bon ñaari ngànnaay te ngànnaay gi xanaa du doon fetal bon ay lawar rek la mën a doon donc bis bu koy siif day yor ñaari lawar weer tëddal wala ma rey la mu tëdd mu def ko naka sa dundoona déllu si ñaari yoon ak yi la war yaram parce que viol répété avec arme à feu pluriel et menace de mort ñëwaat ak ñaari ngànnaay tëddal ma la ma rey ba muy ñeent wala juróom yoon mel na ni fim mu ko koy defee kenn nekku fa kenn mel na ni buñ ko ko defee bu génnee du du du janoog borom salon bi ak borom këram ak ñi dëkk ca kër ga ki ko ko def génn ndànk dem ak yi la wareeram ba muy juróom yoon waxu ko ndey waxu ko bay waxu ko mag waxu ko rakk waxu ko xarit ba muy ju ñeent wala juróom yoon kooku ñu naan Sidi Mohamed Ndiaye jël si ko Sidi Mohamed Ndiaye aussi sunu presse sunu taskati xabaar yi mais Sidi Mohamed Ndiaye da ngeen cee war a taxaw Sidi Mohamed Ndiaye moomu ko jël si ca oto ñu ne 4-4 ñépp nee nañ diwoo ko moom Sidi Mohamed Ndiaye mais barki dem boo Ndiaye yàggut mu def kër escroquerie manifeste bu garaaw a garaaw am koo xam ne dafa ne ko boo ma joxee dix millions fukki million danaa la jox xaw mu vidéo boo xam ne da ngeen cee fekk Ousmane Sonko position boo xam ne mënu kenn mënatu ko weddil dara fukki millions waaja jox ko fukki millions waaja sax moomul fukki millions intermédiaire la ca diggante ba rek. am na kuñ ne moo ko jox fukki millions ya waaw luy ndey jox fukki millions pour rek am vidéo boo xam ni dañ cee wane Ousmane Sonko ci yenn position xam ni da koy tubarkalla tubarkalla waaja jox ko fukki millions moom Sidi Mohamed Ndiaye moom mi jël si woon ndaw sax ba muy porté ci jox ko ab clé USB waaja dem xool gisul dara daara nekku ca dara dara dara nekku ca mais kooko dem plainte dem police police ca Thiès ne waaw ñu ne procureur waaw ñu laaj ko mu ni mooma waaye il s'engage à waaye day nee na dana fay d'accord na ni moo escroqué dix millions moo ko laaj ne dana joxe vidéo boo xam ne danañ ci fekk loo xam ne li Ousmane Sonko dootu mën a weddi dara jël dix millions jàmbur jox ko waaja dem xool fekku fa dara mu dem police nangu ne mooma ñu ne procureur na comme nangu na ko nañ ko bay comme engagé na dana fay way way way way kooku waratu na jóge jóge police Sidi Mohamed Ndiaye moomu moo jëli woon ndaw soosu foofee ca salon ba ñaata lañ ko jox ba mu fadatan dem léegi nag journal bu ma doon journaliste man si me poserai la question daa laaj loolu loolu intéressé wul kenn intéressé wul kenn certificat médical ba nga xam ni moom mooy pièce maîtresse ci dossier bu mel ni dossier viol la ca gën a am solo ci viol mooy certificat médical certificat médical ba lu mu wax ñëpp xam nañ ko ak docteur bi taxaw na ci télévision fépp wax na ko fa li ci gën a am solo te presse bi kenn waxuñ ci lu ci jëm mais Mamour Diallo ak avocat boobu ñu ne Gabi Sow xaw ma mais di téléphoner kii di bëgg xam la ca ne bañ ko xamee mu bëgg ñu bëggum sopp dem di dem ba koy ger ba koy yónnee xaalis waaye moo ko wax ñëpp dégg gynécologue boobu gay moo ko wax ñëpp yi dégg waaw lan lan moo tax Mamour Diallo ak Gabi bëgg xam la nekk certificat médical ba wala bëgg a soppilu la ca ne dem ba cay ger loolu sunu sunu ñu ci dara dara bu loolu wiyee moom bu kéem baag Mamour Diallo waxam jeeg aji saat ñëpp dégg nañ ko ñëpp dégg nañ waxam jeeg sëriñ boobu xaw ma na dem na bay tudd tur yoo xam ne ñoom it dañ koo violé lu mat fukki nit tudd ay tur mais ñëpp ko dégg diw diw kii na ma diw kii na ma diw kii na ma yooyee yëpp boole nañ ko parce que am nañ ko ñi doon défendre Ousmane Sonko am nañ ko teg nañ ko ci loxoy procureur waxuma rapport boobu ñu ne procureur da koo da koo soppi loolu duma ci insister waaw mais lii moom keroog ba ndaw si jàkkaarloog doyen des juges mais ñëpp wax ne laaj na ko yaa wax li nax yaa wax maa ko wax waaye je plaisante dama doon fo po moo xam ne mi ay nit dee nañ ci loolu lépp amul solo ay seede ndaw si dikk ne ñëw ne na ma nee ma man dama am ba mu ne ko lëmbal mu ne ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko man waaye nangu ko nangam ne dama am d'ailleurs ak président de république wax na ko ma Macky Sall man aji sa non astafurlah diw nangam na c'est ak yeneen yeneen yeneen i seede loola lépp sunu presse waxuñu ci dara tey bi ñu xëyee xaw nañ no rey ak aji sar nee na aji sar nee na aji sar nee na kenn néewu ci waaw ba mu waxee loolu ba pare ana firnde ja ana luy firnde li wax waaye dëgg-dëgg na xanaa loolu dul dee dee nag war nañ koo laaj déedéet wax ja doy na ñu ni procureur def nangama laaj nañ ko tëj fukki at waaye même bu dul ci euh, lii ñu koy jiiñ siif gi it nañ ko tëj juróomi at ci gone yi muy ger c'est extraordinaire sax procureur ma ngay xel ma ngay dem ci ne peut-être que lii dëgg-dëgg pour nag même bu fa ko nekkut nekkul lamiñu ndaw soosu rek la seule langue, la seule parole de cette femme, de cette dame, la seule parole de cette dame doit suffire à, faire condamner Ousmane Sonko. Mais il faut tirer sérieux. parce que des des voilà voilà où nous en sommes où nous en sommes la question que tout le monde doit se poser la seule parole de cette dame peut il suffire vraiment à faire condamner Ousmane Zongo à, des peines, une peine criminelle 10 ans de réclusion criminelle. Quand même, Sénégalais Mandé, voilà, de wallaay bu ma bokkoon ci benn bokk yaakaar ak yooyu dana kersa Kep pou fam am russe rus wala le ragal set ce qui est sa borom war nga am kersa te li ni mou deme, lu lu la Ousmane Sonko xamoon na man mi xam naa ko bind naa ko ci sama benn bu mag mu ma def stratégie pour éliminer un candidat la RFI Jeune Afrique et le monde jouent leur partition ma génn ko ci Walfadjri ca contribution boobu wa cité naa ca dama koy tudd Madiambal Diagne day bind altine bu ne day bind mu tuddee ko chronique les dem a Madiambal Diagne lundi boobu li mu wax lu lam ca yekk euh, Ousmane Sonko marre d'Italie loolu il est libre parce que il fait il est il joue son rôle ne audience bi moom na am rek bu boobaa même buñ ko tëjut ndaw si da koy nangam nangam na ko ñëpp liir nag ko ndaw si kii yaa ma nangam yaa ma nangam yaa ma nangam yaa ma moo ko wax bu boobaa même buñ ko tëjut loola da koy topp parce que Ousmane Sell Ousmane Sonko mi naan Ousmane Sonko mu sell mii ndagam moo def lii nun génn nañ ci moom wallaay loolu yàlla xam loolu la wax te am na ndaw suñ naan waaw kaala xaw ma am na xaw ma benn message bu mu doon yónnee joom ñu ne da doon werante ak avocat yeneen moroomi avocat maître Bamba Cissé ca la bokk muy yónnee message juum yónnee ko Bamba Cissé loolu nit ñi wax néew mu moo ko def la ma ca gis muy ci réseaux sociaux yi ne kam ko yónnee ñëpp xam nañ ko la dox seen diggante ñëpp xam ne xaw ma am na xaw ma wut waaye lañ ca dafa ne bu ko bu ko procureur def mandat de dépôt nañ ko def rek euh, contrôle judiciaire

toroxal Ousmane Sonko dong mom lañ ko reality, mais c'est la réalité c'est pas parce que dama and ak Ousmane dedet bu don kenen nakar wi may yam ci la ko yam dafa metti dafa gatché la pour Sénégal li donc li dong lañ ko duggé won xam nañ ni xel li ñu wax viol répété avec arme à feu et menace de mort di le chiffre ak ñaari raw reer tëddal mare la di benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñe ba juróom yoon nga soog a jóg il faut qu'on arrête lii rek la ñu bëggoon te Ousmane Sonko ñi doon wax ni waroon naa ñëw man de jàpp naa ni léegi d'accord am ak moom parce que Ousmane Sonko ñëwoon xale bi tiim ko di ko wax lii loolu mare de tali bon nag Sénégal daal bu fekkente ni lii le premier juin Eh, président tribunal bi nee na Ousmane Sonko tëj nañ ko nangam yat ngir Chief gogo wala bu dul booba li procureur wax ñu ne dafa géré xalé ak Ousmane Sonko li liggéeyal Sénégal il faut kam nañ ko xam fukki at ak juroom li li Ousmane Sonko liggéeyal Sénégal gannaaw ba Macky Sall defee lim ko def jëlub décret dàq ko te damay wax ni décret ba ko rajee man jusqu'à preuve du contraire ce décret viole la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques man jusqu'à preuve du contraire décret Macky Sall doit violer loi portant code de transparence des finances publiques de la gestion des finances publiques amul ben werante man ni ma ko jàngee Ousmane Sonko est dans était dans son rôle fukki a été juróom ko liggéey bu sërëm dugali milliards yu bari bari ci keesu nguur gi wax na ko te ne musu ca jëlu fifteen ba bam mu ca jógee nekk député taxawaayu député la taxaw leeral askan wi seen alal fu koy dugal il était dans son rôle le travail était en accord avec la loi portant code de transparence dans la gestion de nos finances publiques di dénoncer exonération ñi war a fay impôt cinquante mille nangam naxante ba fay diis wala duñ fay dara et cetera guerre corruption nangam nangam affaire pétrole booba ma ngay def liggéeyu député booba ma ngay liggéeyal askan wa fukki at ak juróom yam nekk impôt ma ngay liggéeyal askan wa li mu nekk député ma ngay liggéeyal askan wa li mu nekk maire de Ziguinchor mi ngi liggéeyal askan ndaw soosu dong benn par parole benn lamiñam rek yaa yaama nangam ma nangam ma nangam. ñu sukkandiku ci loolu tëj ko ne ko bokkatoo élection présidentielle 2024 loolu de bu amee Sénégal nangu ko bu yóbboo rek Macky day daal di nekk candidat bu ko neexee parce que day xam ne xeet wii du du maanaam daanaka loo teg ñu tegoo ko loolu daal bu amee rek mu tubarkàlla tubarkàlla bu boobaa Macky na ni xeet wii xeetkat ñii nangu lii seen doom ji ñu def ko lii ñu ne yàcc ne yasar damay am troisième candidature te bu boobaa sax mën naa gañe deux mille vingt quatre deux mille vingt neuf sax man na koo gañe bu boobaa la Abdoulaye Wade ne woon ñoom libéraux yi dinañ fi juróom fukki at lu booba lu mën a nekk la man daal Sénégal gi am naa ci gàcce je ne suis plus fier maa ngi maa ngi jégul lu ma ci wax baat bu ma jox wax bu naka sa dund maa ngi koy jég waaye lu ma lii ma lu ma gëm la c'est pas parce que c'est Ousmane Sonko déedéet keneen ku mu mën a doon it position bu mel ni laayam keneen ku mu mënoon a doon li xew démb naqar bi ma ci am gàcce gi ma ci am kersa gi ma ci am keneen ku mu mënoon a doon moom lay am. waaw képp koo xam ne ki nekk nekkoo ca feeñu naan kër kumba am ndey war nga am gàcce war nga am kersa. képp ku fa nekk sax te amuloo rus war nga am gàcce war nga am kers baax na nu yendoo jàmm